ngeen def mbokk nga xam ne yéen a ngi topp invité de la rédaction am nañu mbégte àndaat ak yéen tey ji nag ñu am mbégte lool dalal ki nga xam ne nag moo di Serigne Cheikh Thioro Mbacké moom nag moom mooy coordonnateur PASTEF ci Touba ñu fas yéene sekk ak moom waxtaan Serigne bi ñu ngi lay dalal jàmm ma bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo lay topp ci 24actu.com. salaamaaleykum wa ñu ngi lay fay Serigne Seynou di la dollu nuyoo di la baalaax bu baax di la baalaax di la ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen tamit mm-hmm. di am mbégte seen studio bi. Mhm. fas yéene si yàq yéen ay laaj ak tontu. Mhm. incha allah jërëjëf euh, sëñ Cheikh Thioro wax naa ko ci bi may tàmbali yow yaay coordonnateur Pastef euh, ci Touba gis nañ ne élection présidentielle yi jàll na euh, mais itam xëy na niñ ko mën a waxee naka ngeen am na ay jafe-jafe yomoon parce que li ngeen bëggoon amu leen ko muy gañewu leen ban analyse ngeen ci ngeen ci def ci élection yi. waaw analyse bi ñu ci def bu simple la. Mhm. ku gis élection yi ni ñu duggee ak ak biir campagne bi ak avant campagne bi. di nga xam ne élection yu métti la woon. mën naa la président sortant bi programme woon ay résultats am résultats yi bi nga ko programme bi mu génne effectivement noonu la demee. mais ñun euh, concernant parti Pastef liñ ci bëggoon am nañ ko ci. muy lan ndax liñ ci bëggoon mooy impose suñu bopp ci seen politique Sénégal bi. te li ëppoon ci suñu discours tamit ndaw ñi déggoon dañ ko consommé nañ ko. ah mais kon sëñ bi programme woon ay porte ay résultat am hmm. résultat yi bi génnee noonu la demee hmm. ndax ku gis seen ki jiitoon seen groupe parlement bi ay miru ñi avant élection yi deux cent ci ginnaaw dem na groupe Futurs Médias hmm. ne Macky Sall bu élection yi jeexee cinquante huit pour cent day gagné nga dégg fu ne ñu wax fi élection yi dix huit yi yaakaar naa bu ay jinne doon woote it résultat ngeen di xamee lu mel noonu ba pare di dem ci élection yoo xam ne leer na ne neen euh, seize huit baaxu ci. Hmm. politique moom lu mën di xew del teewri ci parti. kon yéen da demoon pour combler le demoon nañ. Hmm. pour xool processus électoral bi bëggoon Sénégalais yi it dégg li leen wax bu ëllëgee ci biir ñu jàngat ci. Hmm. rectifier erreur yi amoon. mais ku gis Macky Sall ni mu doxalee élection yi. ak élection yi résultat am xam ne loolu mënutoon a kenn mënu ci woon génn ak victoire ku moom. Euh, gannaaw élection yi gis nañu ne euh, am ngeen niveau ah Touba de boo xoolee résultat yi ni mu demee. ak élection yi ni mu fi amee ak ni ñu ko defee woon élection tariixa na ma baat bi. te it loolu moo am moom du. da bi votu tariixa la fii ci Touba. waaw sama gis-gis moom loolu ak gis-gisu Sénégalais yu bëri. mais boo amee loolu kan xanaa kon Casamance vote euh, affectif moo fa am. wala vote ethnique. loolu mënoo koo dindi. Hmm. Casamance ko gis résultat yi nañ demee xam ne kàddu Moustapha Cissé Lo moo ko mutu fi <laughs> loolu kay Sénégal yëpp xam nañ ko du jàggan da ngay bañ fee lii nangu fii lii déedéet loolu moo am hmm. Casamance woote nañ Sonko gaa ci programme woote nañ ko ngir seen doomit hmm. ndax Sénégal waa Touba tamit kon bu ñu watee la Idriss Seck xëy na kon sëñ bi loolu jotoo na ak li ñu doon li ñu doon wane ci réseaux sociaux yi hmm. naan kii dañ ko génne fii ngir lii kii dañ koy def lii ngir lii hmm. kii dañ koy tooñ ngir wàllu pas-pasam hmm. moo di sotli ko ngir loolu rek waaye ñun am nañ satisfaction ci élection yi ni mu dërloo ci Touba ndax ñun ñoo jël troisième raw fi Madické Niang mi nga xamante ni dundam gépp Touba la ko def loolu waaw loolu du liggéey bu yomb waaye Idriss Seck raw leen fi benn yoon Idriss Seck rawuñu fi ñu mboolem ki politique seen politique bi da la fee raw Touba lamine la lamine yu metti loolu nañ mérite waaw loolu méritam la ak méritu ñi nga dañ ko jàppale ngir jëmmi Sëñ Touba. Mhm. mais campagne bi est-ce que sëñ bi amoon ngeen moyens yi war pour euh, dérouler ko ci Touba. bu dee moyen xaalis moom amuñ ko woon. amu leen ko woon non amuñ ko wax dëgg yàlla. ndax parti bi ko gis ne muy sooxe. Mhm. xam ne ay cotisation moo ko yor. Mhm. ak nit ñoo xam ne dañoo falantewu jox seen bopp parti bi Ah, programme Ousmane Sonko yi ñor leen ñu ñu jox seen dund yëpp parti kon da ngay dëggal li nit ñi di wax ne Sonko du génn xaalis. da koo nit ki loo yor ki élection présidentielle mënoo ci dem nag Mbacke Balla xëy na amoo yenn kii loolu Sénégal lañ ko xam waaye dëkk yu normal yëpp kenn du hmm. campagne xaalis programme ngay campagne. Hmm. moom li waroon def na ko. Hmm. mooy avant élection yi mu génn ab livre am. tuddee ko solution. lu ko jiitu mu bind a am ay kayit. kooku moom lu bees la ci Sénégal. teg ci it offre Sénégal yi euh, programme bu baax baax boo xamante Sénégal yëpp gis nañ ko. loolu la warloo ñun ñi nga xamante ni programme bi intéressé nañ leen ñu def ci seen alal. financé campagne am ñoo ko def liñ ci financé it moom xëy na ñun am na lu egg ci ñun waaye lu wér wér daal mooy. parti bi moom difficilement ci lañ doon campagne ndax amuñu ay moyen mais est-ce que jàpp leen na ñu euh, na yi ma fekk yëpp euh, Sonko dem ci balaa dara xew da ngeen di wax ne du man du man au lieu ngeen convaincre askan bi loolu est-ce que tamit jàppale ne handicap la Ousseynou xëy na xëy na am na ñu ko doon def ñu faral ci parti bi waaye ñun moom gis niñ doon doon campagne ak mm. président Sonko doon campagne mm. xëy na weddiwul tuuma loolu euh, euh, concentré ci mm. fu mu doon dem bala moo def dara dina jël aw xët ci programme comme programme bi tudd jot na li ñëpp bokk ñëpp waxtaan na ci programme bi

yooyu boobu am màkka mhm. dafa am yoo xam dafa teer a daal nit ñi war nañu ëppale seen seen bopp mhm. nit ku ci nekk la ngay wax da ko war a gëm ñun combat bi ñu nekk dañu koo gëm mhm. fas yéene cee joxe suñu bakkan tamit suñu bakkan mooy Sénégal jëm kanam Sénégal am ndam ci li muy def doomu Sénégal yi li ñëpp bokk ñoom jot ci voilà bi ngeen génnee ci élection yi ban analyse ngeen ci def ban jàngat ngeen def ci élection yi ak ak mooy ëllëgu euh, Pastef ah bon waaw ndax avenir um réew mu ay ndaw a ko yor. Hmm. te parti passif ay ndaw ñoo ñoo ñoo ko dirisi. Euh, par exemple li ngeen jël troisième ci élection yi moo tax nga wax loolu. Ah, euh, ak euh, troisième xëy ak coalition bi ñu demee. Hmm. ñun ñoo gënoon néewli coalition. Hmm. foofu boo xoolee coalition Idriss Seck bi. doon jàpp ne di yëkkati Macky Sall ba ci doo suuf nga xoolaat coalition Benno Bokk Yaakaar bi. la ci nekk ñun suñu coalition daanaka yow mi bu ma la kan moo nekk ci coalition waaw est-ce que est-ce que tamit ay récupération politique tamit bokku ci li nga xam ne tamit yàqal na leen. ci Touba récupération politique comme. c'est-à-dire euh, ñeneen ñu doon fàq ci yeneen parti yi di ñëw ci euh, Pastef ci ngeen gënoon a concentré wu ci ñenn. Ah, déedéet parce que gis nañ ci ñoo xam ne ñëw nañ mais finalement fa mujjee neexul. xam nga ñun moom liñ liñ liñ li kuy ñëw Pastef. Hmm. da nga fiy ñëw ak ngëm-ngëm. Hmm. xëy na bu fekkee da nga fiy ñëw ngir gis ne ñii nit ñi campagne jaaxal na ma nangam nangam am na lu nekk ci ginnaaw hmm. xaar mu ñëw xooli soo ñëwee ba xool la nga doon séntu xëy na gisoo ko mën ngaa demaat mais ku ñëw da ngay am gëm-gëm am ko conviction ñu nekkoon suñu biir nga xam ne ñoo ngànkoon parti bi fii ci Touba amul kenn ku génnaat ba léegi ñu ñoo fi nekkaat. di dund Moustapha Seck maa woo nag. waaw Moustapha Seck xëy na programme Ousmane ñoroon na ko. au début mu euh, ñëw ne day relier delluwaat na loolu amuñ ci problème. moom la concerné. mais ndax wax tey gis nañ bi mu génnee tamit mu la parce que yow la moom gis nañu ralliement bi bi mu ñëwee n'est-ce pas yow yaa nekk coordonnateur bi. waaw voilà mu dikk après loolu moom lu normal képp kuy ralliwu ci parti hmm. yaakaar naa ki la war a jëli mooy coordonnateur principal hmm. waaw naa ko dem jëli dégg lu mu wax ma rafetlu ko mais dañoo gis ne bi mu jàllee coow am sa diggante ak moom déedéet cooli la rek cooli benn parti la déggaat nga man ma wax ci du ma wax ndax doo bañ ko lu attaqué waaye li doo tontu ci moom doo doo tontu Moustapha Seck la Seydina daan lay wax li mu wax bu dee dëgg la hmm. yàlla na ma ko yàlla jéggal bu dul dëgg moom yàlla na ko yàlla jéggal aw mu ci commentaire. nee na de Sonko moom da nga koo téye ci baat. waaw moo tax man de bu dee dëgg la. Hmm. yàlla na ma ko yàlla jégal ndax tey na ko yàlla jégal ma ci lu ma ci commentaire. yow daal foofu nga ciy yem ci diggante ak Moustapha Seck. ëppale naa sama bopp ñëw fii di tontal rek moom fa lay hmm. hmm. ah, voilà sëñ bi eh, ñuy wax ci actualité nationale bi gis nañu que ni dialogue national bi woote nañ ko ci Sénégal eh, Ousmane Sonko presque mën nañu wax que ni candidat yu bari dem nañ ci wuyu ji waaye mu defoon moom nee na du yéen lan lan mooy ci seen jàngat ci loolu. moom kay dama yaakaar ne loolu euh, respecté naa ñu nekkoon. Hmm. ndax samay kilifa ñu ngi fi nekkoon ci wàllu tarixa bi. Hmm. am na ay kilifa politique yoo xam ne naw naa leen seen histoire politique Sénégal ni ñu fi déroulé bi egsi fi hmm. mais nag la fa amoon mën naa ko bañ a tuddee dialogue dañ fa doon suyee xëy na théâtre sax naa ko mën a tudd. dialogue national bi ñu woote ji parti politique yi ñëw ak ñeneen ak ñeneen. nga leen nga moom pour mu mën a am. par hmm. force dañ ci ay guerre civile. Hmm. wala mar d'Italie hmm. réew génn ci ay situation yu difficile. mais kii nee na moom moo gañe avec 58 pour cent Sénégal yi moom la ñu wóolu jox ko mu war a diriger réew mi 5 ans yu ñu jëm. moom kay li war a mooy programme am diriger ko dem. ñu war a opposé non ci la nekk mais waxtaan nag sëñ bi dafa baax xanaa kay waxtaan dafa waroon na waxtaan avant la woon. Hmm. mooy ñu waxtaan ci processus électoral bi. ndax Sénégal yi yëpp gis nañ opposition bi taxaw ne ko. Hmm. bëgguñ Aly Ngouille Ndiaye organiser élection yi. Hmm. du ko def du ko def du ma ko def ba muy ñetti yoon la wax. def la ko neex a ñëw leen a woon a wuy ji jal ba buñ tegee lu baaxul. ngeen ngeen teggi ko ñun parti Pastef mais nag toog xanaa ku la woo dina la wax mbaa mu jox la nag. seen biir lépp lu ñu a woo président Macky Sall

par en tant que président sax sa kàddu mu gën a ratax laa kooku ah, ah, <laughs> am ah. na fi yi xam ko bopp 90 pour cent yi weddi nañ ko hmm. gis na loolu tiital na ko. dialogue mm. bi yëpp nag ma xamal la ñaar kenn ko ci ñorom muy président Sonko. Sonko bi yëpp président Sonko la bëggoon mu ñëw ci te am naa mm. ñu koy woole di négocier moom yëpp mu koy récité. kon dialogue bi daal Sonko lañ ci doon. rëb moo tax amuñ ci satisfaction moo tax moom dafa am mbetteel. Mm. ndax ñi santoon mission bi pour ñu indil ko président Sonko réussir mission ndax président Sonko du dem fu ñuy diile Sénégal du dem fu ñuy naxe Sénégal yi lépp lu muy def da koy gëm. ña demoon ci dialogue ba quatre-vingt-dix pour cent yëpp gëmuñ dara. mais Sonko yemu ci mais dafay ñi wuy ji fi mu toll da leen di xas loolu xëy na. Ah, mais moom dong wuy ji. presque ci candidat yi bu dee wàllu front bi moo yay dal seen kaw. Hmm. ndax nit mënoo nekk ni ab front. Hmm. front ku ci nekk am ci sa représentant. Hmm. mënoo jékki-jékki di jël yenn décisions yi ci kaw front bi te waxtaanuñu ci kaw front bi. Diop Decroix li mu def nan nga xam nga nit ko xamante ni pesé woo dara ci langue politique Sénégal ku mel ay Diop Decroix Omar dañ koy jël mel ne ci kaw Sénégal yi ñu def ah, loolu kay Sénégal na te loolu lépp li waral mooy li Karim comprendre yi mu doon def ci moom yooyu dafa jóg ñu dakkal Sénégal yi xam ne Sénégal yi da nga leen war a respecté pour nga respecté Sénégal yi far fos nga respecté sa bopp ñun fii ak Pastef mi ngi am ci Sénégal gi man maa ko njëkk wax ci Mor Mbaye Cissé ne ko Ousmane Sonko bu wuy ji woon Macky Sall man ci njëkk démissionné Pastef ci laay bokk ndax kon dialogue bi bu Ousmane Sonko demoon nga bàyyi man damay ba Pastef hmm? waaw ndax nit ki mënoo di ko mënoo ko dèjà reconnaître ko comme président de la République ñi nekkoon ci quatre candidats yëpp ñoom ñoo ko signé ne reconnaître ñu Macky Sall comme président de la République dèjà kenn félicité ko ci nit ki mënoo ko ñàkk reconnaître ba pare muy woote ab dialogue ko fa demoon da comme président nit bon na mais yéen tamit bi ñu génnee ci élection woote yi euh, ñi nekk ci kujje gi yi ñu doon woote yëpp da ci doon wuy ji dinañ ci doon ndax dañ leen waaye nag nit ki boo ko respecté da laa dee respect ba <laughs> <laughs> boo ko respecté da war a mais est-ce que tamit euh, du euh, patriotisme bi ngeen di wax mujjewu ci égoïsme. <laughs> non non yaakaaruma loolu nag wax dëgg yàlla. Hmm. ñun moom hmm. hmm. baat bi lu muy signifié. maanaam koo xam ne boppam rek moo ko ñor parce que ñun bu fekkoon suñu bopp moo ñu ñor. duñ posé acte yi ñuy posé. bañ na ko ba biñ ne wuy jiwu bi. yemuñ ci wuy jiwu njëlob bi. dañoo posé acte yi tax wuy jiwu njëlob bi. wax koy teg ne léegi léegi lii moo tax tax ñun duñ wujj ci dialogue bi. Mm. xam nga loolu mooy problème mm. képp nag ku nga di attaqué wala nga dañ wax nangam. Mm. yow la engagé. gis naa sax benn honorable député bu dëkk Touba Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly di ci wax wax ju ñaaw président ko te loolu su président jiwu ko ko. lebalu ko ko. moom moom Bara Dolly li ko ji mooy teraanga. li mu ko lebal mooy teraanga. kon nag kooku boo yëkkati moom ci kàddu nga xam ko bu baax a baax a baax mm. ndax assemblée nationale ba mu nekk di teel teel di rajax rajax kan moom bala moo posé question day ñëw ba ci président Sonko bindal ko ay question mu dem posé ci Sonko mooy bindal question mu dem posé ci ah waaw te moom nag na xoolaat taxawaayam bu baax a baax baax mi ngi gàcceel askan yoonu murid yëpp ndax mun di la tudd Sëñ Tuubaa te ku bëgg mercenaire pour saagaloon nit recruter wala dara loolu war naa xoolaat taxawaayam. Mm-hmm. loolu moom lu ñaaw la moom. voilà euh, ñu avancé tuuti gis nañ tamit euh, fast track bi président supprimé na poste premier ministre bi ngir gën gaawal. li ko dese ngir joxaat boppam doole. ngir joxaat boppam doole. yow yokk ko jëlam amoon. joxaat boo joxaat boppam doole. yow ban gis-gis nga ci amee dañuy mujjee keleen fa tegoon di yërante mbagg hmm. xëy na dem na ba wóoratul buñ jonn wa ilaa am na leneen yeneen raison raison yu tax mu rek moom moo xam est-ce que du tax lu gën a gaawal liggéey bi mais daal du dara ay créer créer ay emploi yeneen fi nekkoon yëpp liggéey bi gaawul nii dafa nekkoon sept ans yoo xam ko nekk ah di gaawal hmm. Macky Sall moom lépp lu def hmm. politique moo tax mu def ko deful dara pour intérêt Sénégal Sonko lu mu def du politique. non non Sonko moom lépp lu mu def. Hmm. intérêt askan moo tax mu def ko. ndax intérêt askan wi moo tax fa mu hmm. tax lim daj lépp mu daj ko ci cinq yi. mooy politicien bi ëpp ñu saaga boo bëggee million sax wala nga bëgg a tukki wala nga bëgg passeport saagal président Sonko pour door ko mën a am. <laughs> voilà suñu seex ñu dikk ci euh, Touba ak jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy jànkonteel jamono ji lan mooy euh, yi nga gis ni Touba war na ko mën a am te te amu ko wala lan mooy jafe-jafe yi ci Touba. Touba moom jafe-jafe yi ci politique waaw. Touba foo ko takk passé na ko. mën naa ne sa Touba euh, du ne amul dara ndax moom bi dafa diis ndax dëkk bu am sëñ Touba moom ñàkkul dara. mais ci wàllu développement. Hmm. dëkk bi mooy dëkk bi gën a a gannaaw ci Sénégal. Euh, moo am effectivement nawet baa ngi nii di jub si yow. ñun ñi nga xamante ni bokk doomi Touba lañ mhm. yoroo Touba juddu Touba màggee Touba te ñaanuñu yàlla génn fi benn yoon nag mhm. lu dul wuti koom-koom indiwaat ko ci dëkk bi xam nañ ne nawet bu ñëwee difficulté yi waa Touba dund yu jéggi day war te lépp dara warlu ko lu dul gouvernement bu seetaan waa Touba ak mairie boo xamante ni na gouvernement bi li fi def def nañ ko ci wàllu assainissement ah, kon parce que Touba dëkk boo xam ne day màgg de manion day màgg màgg gu yaatu noonu ah. vraiment ah assainissement bi nekk na lu gaa yi sali man daal liggéey dama bëgg bu ñu nee la diw def na nangam ak nangam. Hmm. yow mi dëkk ci dëkk boo geesoo gis ko waaye ñun ñi dëkk ci dëkk bi li ñu gis mooy. Hmm. bu nawet jotee. Hmm. Eh, suñu yaay ak suñu maire yi suñu maam yi ak suñu yaay ak suñu baay di génn seen kër yi di luye yi. Touba mosquée bu nawet jotee jumaay Touba ji doo fa mën a. di mais loolu am na Dakar sax sëñ bi. Ah, waaw loolu xam nga Dakar concerné man Touba moo ma concerné. Touba nga ma laaj. bu nawet doo mën a dem ci jumaay ji julli ji bu nawet jotee jàkkee suñu saay gi dëkk suñu ndaamaatu na muy mel yooyu nag li jot mooy ku munta gouvernement bu la munta régler ñett yi hmm. soxlatoo gouvernement hmm. mooy nga faju nga soxlaa faju mu nga soxlaa faju hmm. mu wutal la hôpital bu fajoo nga soxlaa liggéey mu wutal la mu xëy nga soxla dëkkuwaay bu baax a baax mu tegal la environnement boo xam ne di nga fa mën a dëkk dëkkin mu rafet ku la ko mënta defal jurut nga koy wutal gouvernement te loolu lépp suñu taxe la suñuy impôt la dañu ko war a defal autoroute Ila Touba bi xanaa gis autoroute Ila Touba bi Touba tox koo jóg wax naa ko encore une fois mais Touba tox koo jóg sëñ bi mais boo boo boo bëggee dem dem boo bëggee ñëw ñëw xam nga ñi dëkk Touba ñi ngi ciy dem di ci ñëw nga ne Touba tox koo jóg autoroute bi bu fekkonte ni Touba la ko bëgg a defaral xam nga autoroute moom su ñuy fiwul dara lu deux fois oto bi jaar nii bi jaar nii te duñ laalante Ah, du dara tawari gi yëpp mën na ci ñàkk ah. léegi nag bu fekkonte ni defar Tuubaa mu ko tax a jóg ah. sun sun sun sun route nationale bii nga xamante ñun moom lañ amoon ba xamante nii sax président Iran moo ko financé woon euh, Dakar bu Touba président sortant bi fi nekkoon damm xaalis bi def ci poosam mujj financé lu ñu njëriñ bu Touba <laughs> loolu bu fekkoon moo ko tax a jóg tëri boobu lay yaatal bu ko yaatalee du côté du côté gouvernement Sénégal milliards te boobaa bor duñu ci fekk nga xam ne milliards yi xaalis bi ñu ci war a def mën na koo ñëw def ko ci biir dëkk bi mais hmm. hmm. autoroute à péage ci boo yor dem di ñëw ah, nag sëñ bi loolu moom képp gore ndaw la am vision waroo ko tiituroo képp ku politique waroo ca wax sax ndax ndax kooku dafa xool ne Touba moo gën a gaaw a génn njëg li mu def ko Touba bu ko Ndar gënoon a gaaw gaaw a génn mu def ko Touba mooy dëkk bi nga xamante ni ñoo ñoo fi def autoroute bi it juruñ seen xaalis di ko sànni képp koo xamante ne ay commerçant doo nga lañ Touba dañ gis ne moo gën a gaaw ñu def ko fi waaye loolu dara. <laughs> lan nga gisee liggéeyu maire tubaa ci sa euh, jamono ji. waaw maire ki nekk ci maire bi moom dama ko yërëm ndax xëy na sax bëgg na. Ah, bëgg na maire bi nga koy yërëm sëñ bi lu tax du ma yërëm mooy xëy na am na yéene liggéey wala leen waaye munta liggéeyam ndax bala nga mën a liggéey compétence bi dafa war a nekk ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye koo xamante ni xamul dara munul dara lim man mooy nelaw monsieur le maire xamul <laughs> <laughs> dara xamul dara munul man mooy nelaw yow boo waxee mu ne sëñ bi ma te teg nangam ak nangam kooku moom li mu li mu war a li mu def moom mooy lenn hmm. woote conférence presse ñëpp di ko diglu hmm. mu jéggalu waatuwaay yëpp yëpp yëpp jëlaat li ñu ko dénkoon moom jox ko sëñ Sidi sëñ Sidi xool ko compétent mu jox ko dëkk bi ndax dëkk bu ñu ne fa la sëñ Tuubaa dëkk sëñ Tuubaa ni ko xam ak sëñ Tuubaa ni ko xam-xam ñore woon hmm. def adduna bépp ci xam-xam ñu ne kan moo jiite dëkk bi ñu ne ka ko jiite mënta liir mënta bind loolu moom gàcce la ci yor murit moom loolu moom lu ñu war a rectifier la moom mais est-ce que moom nga war a attaquer ka ko jox kay sëñ bi xanaa moom nga war a waxal buñ la joxee loo mënul da nga koy delloo <laughs> léegi buñ la joxee loo mënul nga ñëw ne lii man sëñ bi jox nga yow yaa ne mënu ko mais moom waxu la mënu ko ah mu ay mënu ko kay feena munu ko ay fele di munu ko mooy ba mu fi toog ba def fi dara. laat ka def fi dara. ah li mu fi def bilan ba mu fi toogee ba léegi. bilan sero sero sero sero zéro bi def fi tus. laat ka def fi dara. lu <laughs> dul bénéfice ci di ci tabax di ci takk ay jabar di ci tabax ay kër. di taxawaa lu ko neex mu def. li war a def mooy woote conférence de presse ñëpp di ko diglu bu ca paree it wëraat ci kër waa Touba yëpp yëpp yëpp doon bëgg a def juru dundam yëpp mu jéggul leen hmm. jëlaat lenge dem jox ko sëñ Sidi hmm. sëñ li fi nekk ci ay nit ñu jàng li fi nekk ci ay borom xam-xam di ay taalibe sëñ Touba kenn xamul toll mu jël dëkk bi jox leen ko hmm. Touba développé ndax bu Touba développé Sénégal développé. Sénégal développé voilà xam naa waxtu bi sax li ci des euh, bariwul ñu wax ci wàllu kaaraange gis nañu ne jamono ji Touba xaw naa ñàkk kaaraange yow en tant que koy yëngu ci politique. du euh, Touba Sénégal képp moo manqué kaaraange waaw waaw surtout Touba manière euh, <laughs> moom boo gisee nii dëkk bi demee hmm. xam ne képp ku yorum njaboot gu ndaw di nga tiit lool lool lool ndax kenn amatul sécurité hmm. ñun ñi di dugg sax xëy na mën nañoo génn fii kenn kat escalier yi jam ñu paak hmm. Touba du mujj fenn li ko mën a saafara nag mooy indiwaat peine de peine de mort waaw mooy ku rey yow d'accord nga ci peine de ah yàlla moo gën a fonk ñëpp doomu aadama yi te moom moo ko wax hmm. képp ku rey nit dañ laa war a rey hmm. loolu moom jëruñu ci masla yërmande yàlla moo ñu boo fa demee am na ñu fa tëdd ñoo xam ne dafa erreur la leen fa dugal mbaa duñu rey ñu ci ki la fekk ci sa biiru waajur hmm. sàmm la fi juróom-ñeenti weer dara sikkut ci yow mu génn wàll àdduna bi kooku moom bu fekkee ne yërmaande moo ëpp ci ñëpp yërmaande mais doomu aadama nag moom mata di nit dañ koy tooñ dugal ko sëñ bi ah kon kay léegi demal nga nga rectifier yàlla yàlla hmm. moom hmm. moom dañuy wax jurut sax ko rey nit dañ laa war a rey hmm. man nag kilifa yi demoon ci dialogue ba moom pour pour pourquoi posé wuñ loolu Macky ne ko indil peine ci dëkk bi te ñoom nee ay kilifa diine lañ am diine leen ko may jàkkaarloo nañ ne président de la république waaye président yaa rafet président opposant bi. président Sénégal du état islamique de. Ah, mosu koo doon te moonte euh, peine de mort bi 2004 ak Abdoulaye Wade dina ci constitution bi ci na ko si war ray. moo fi nekkoon naka jekk Amérique gi peine de mort moo fa am ak yeneen yeneen réew. Hmm. te ñooñu dañuy réew duñu réew jullit. Hmm. moo man indi solution ci nit ñi. kon daal jàpp nga ne yow ñàkk kaaraange gi ray ray bi daal nga jiir lu toll ne bakkanu doomu aadama hmm. ñu wutal la këyit faat ne la dof jékki-jékki génn war la ci bi ñooñu seen mbokk di jàkkaarloo yow ñooñu seen mbokk du nit hmm. man ku ray mbokk doo jaxat ma lay dox ma gis nga may gis hmm. Euh, lan mooy sa kàddu yu mujj <laughs> ci jotaay bi xam naa waroon naa mën a gën a yaatu. Ah, mais dinañ am temps incha allah rabi ngir yaatal ko. am ci mbégte ak contentement rek. Mm-hmm. di jégalu nag di la jégalu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. xëy na lii waroon naa am bu yàgg yàgg. dëgg la mais nag euh, jaam pexem yàlla dogalam. Mm-hmm. mais fi ñëwee gis naa fi lu kawe sama njort. du ñaan yàlla seen site internet bi. dem ba jur ay télé télé. ndax yàlla mën na ko yàlla na ko suñu borom def. amiin gis naa fi ay ndaw yu dynamique tamit ñoo xamante ni liggéey rek lañ gëm. lii rek mooy journalisme amul secret mooy jox sa bopp askan wi rek. di leen déglu lépp luñ bëgg nga dox jëm ci. beneen secret mu ko woon. tey moytu corruption ak yeneen ak yeneen rek. dinaan yàlla suñu borom defal leen jàmm baax rek. xanaa di profité waal di mhm. gërëm sama àndandoo bi. voilà sëñ Saliou waaw. ma moom moo nekk suñu chargé des élections niveau Touba. élection yi daj na ci coono yu toll ne màggalu Touba. Mhm. Ah, wàllu ñu koy jéem a jënd. Mhm. di ko jéem a ah, moom mi dañ ko doon jéem a ah, ku xam li mu yoroon ci élection yi. Euh, bu ñu am bu bu Pastef réinséré. Hmm. di parti bi ëpp lu mu parrainel fii ci département Mbacké ci ci ci mboolem Pastef. Hmm. grâce à Saliou Wade. Ah, te loolu taxawaay moo ko waral. xam naa moom dina jàkkaarloog ah. asu ci jotaay ah. incha allah rabbi. waaw asaw <laughs> daa xaw lañ la waaye xanaa bu dul kenn mais proposition yi am na ko ci ci wàllu élection hmm. te it gëm président Sonko moo tax mu toog ba heure bii. jox ko boppam du du ma ne gëm président Sonko sax ndax moom dafa xaw a terre à mais gëm réew mi moo tax ma di ko def. Ah, ndax ñun ñëpp Sonko taxu ñu jóg tey jii lim ne moom lay moom la fas yéene yore Sénégal mm. buñ ci gisoon mu changé lu toll ne virgule dañ koy baax mm. ndax joxee lu ñu dépense mosuñ ko lekkal ñaari salaamaaleykum mm. conviction lañu ànd ak moom ak gëm-gëm waaw loolu nag ñoom ñëpp ci lañ nekk ak mboolem ku nekk ci Pastef ci Touba mhm. jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm Serigne Cheikh euh, Thioro Mbacké moom mooy coordonnateur u euh, Pastef ci Touba ñu ngi koy sant bu baax ci of gi nga xam ne am na ko ngir wuy si ci jotaay bi waaye tamit yaakaar naa waxtaan bi liñ ci doon sant yu bëri euh, vraiment matal na ko ñu ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm di sant Cheikhouna Ndiaye mi nga xam ne moo nekkoon ci caméra bi ak Moussa Ka Khady Niang moo nekk ci montage bi di leen jox dig daje incha allahu rabbi ci beneen invité incha allahu rabbi invité de la rédaction jërë ngeen